rassembler rapidement mooy c'est une suite logique des députés de Yewwi ci li nga xam ne moom mooy perturber liggéeyu assemblée nationale wala perturber institution bi et pour de faits politiques nañu waxante dëgg mosuma gis député buy sitting ça c'est pas une mission poli c'est pas une mission parlementaire nañ dissocier seen mission politique de leur parti ak seen mission parlementaire assemblée dafa am lu muy fonctionner su fekkee da nga am ay questions danga koy déposer au bureau c'est le bureau et la conférence des présidents ñooy décider euh, euh, programmer li nga xam ne moom mooy jour bi pour que ñu war a mun a def une séance euh, de questions orales bu dee questions écrites ñu envoyé ko ñu tontu la et ça s'est toujours passé comme ça pourquoi aujourd'hui parce que tout simplement am na ay députés yu nekk euh, tudd député Yewwi parce que tout simplement comme ni ñu koy waxee dañuy jot ay ordre ak ay injonction ci seen leader parce que moom moo ko wax bi coow li amee assemblée ba nga xam ne député yeew yi dam nañ taabal yi moom moo taxaw muy Ousmane Sonko ne man ñun ñoo leen sant loolu donc c'est parce que ñoom ñu ngi leen di sant ay agenda politicien que dañu war a ñëw discréditer institution donc le président de l'Assemblée nationale que je connais très bien muy nit ku baax nit ku humble mais nit ku courtois mais nit ku ferme li mu def la war a def parce que moom mooy yor responsabilité de faire fonctionner l'institution bi nga xamee ne ñëw na ñu war a mun a teg assemblée nationale ñoom dañoo jël seen motuwaay ne kenn du fi teg dara parce que tout simplement bëgguñ assemblée nationale fonctionner d'ailleurs jël na ay mesures donc dinañ ko critiquer dinañ ko yekk lu nekk loolu ci seen coobare bopp la parce que la ñu bëgg mu def ko mooy euh, échouer wala faire échouer cette institution là moom du ci dox parce que ñoom loolu moo leen arrangé pour que a am des arguments yi nga xam ne moom la ñuy vendre projet ngay dégg y' a pas